Yes, assalamualaikum. alaikum. Ini lagi siar. Di magal, di lain nama, di lain titro, di bagai Musen box Senegal, mula mula. Ya, main yo cuitan bugar terek. Ini esang aja gua. Di jago Duri eh, bi, ngom dapat So so cold, so cold. extremely cold. yeah bon euh, lu ma njëkk a wax na maa ngi administration Sénégal euh, De le peuple sénégalais mi exigé exigence là je pèse bien mes mots mi exige pour nous afficher seen fichier électoral sur internet comme dëkk en am démocratie il yu koy def fichier électoral demande fichier électoral n'est pas demander grand chose fichier électoral avez boo dem dès que vous avez am démocratie la transparence la justice l'équité, am équité fraternité la liberté, c'est un fichier électoral qui est ci internet Canada gi ma nekk nii sànq dugg ci fichier électoral bi mi ci internet bi fichier électoral 2024 le Canada a un fichier nga bind sa numéro d'identification etc., cetera et cetera nga partout France am fa mais ñun Sénégal lu moo tax respecté wuñu lan moo nit yi wuñu ay nit lan seen nit yi hein? France français yi jàppee seen administration jàppee français yi ay nit jàppee wuñu Angleterre seen administration jàppee seen peuple ay

dara desetuñ leen ko di leen fay salaire di leen jox ngeen lekk di leen jox ngeen nan même jël ñu fichier électoral bi dugalal ñu ko ci internet bi c'est tout un problème mais soyez un peu sérieux les l'administration laa leen di wax soyez un peu sérieux li ngeen di def nii c'est des délits da ngeen war a dugg ci kaso bi da ngeen war a ñu ci kaso bi parce que yéen joxu leen ñu cër parce que lu tey ni sañu fichier électoral ñun kenn mënu cee dugg dama rus dama am ma yeewoo gis benn kenn ci benn parti politique ak yore ay tonu carton nan fichier électoral baa ngi nii dama tiit dama ne mais fichier électoral ba kañ la doon ay kilo fichier électoral kañ la doon ay kilo kañ la fichier électoral doon ay tonnes bañ koy def ci ay carton kañ la fichier électoral dugg ci ay carton fan la jëm fichier électoral lu muy def ci carton ñu koy tegale

fii ak fii ak fii mooy am ci département bi ñaata bureau de vote mooy am mais yéen respecté leen ñu tuuti ngir yàlla lillaahi wa rasuuli suñu administration jox leen ñu tër gaayen jox leen ñu tër ñun buñ taxawee ci tubaab yi duñu siggi ñu am dañu ñimeewu ñimeewu sax am fierté di tudd suñu suñu dëkk yi man j'ai j'ai honte de dire que je suis ndax imbécile yi nga xam ne dama leen jiital sama administration lâche duñu ñu siggil nit comme des animaux

depuis quand les fichiers fichier électoral di les cartons? carton depuis quand les fichiers def électoral ci ay ci ay carton di déposé mais depuis quand Sénat ou Macky Sall bi benn lien lañ dugal Ben depuis ce matin kenn amul possibilité dugg ci ben lien lañ dougal ne pour une vérification fichier électoral baa ngi non j'ai honte dama ubi suba ba legi maa ngi ubbi mënul dem ma foog ni problème bi man kese mo wa sama rakk bi ne ko booy kaa sa portable ba léegi mënul dugg fichier mënul ubbeeku fichier bu mënul ubbeeku am ben way ma laj ko mu ne ma no <laughs> xamna ñuy duggo bari bëri sarab xoni li cey dëkk bi dëkk bi tas ko gën bàyyi ko nii de tank que yaa ngi bàyyi nii Sénégal dina gatché nga ci am dëkk bi lañu wara tas ngir yalla ku ne dem sa yoon kenn du topé kenn dara tant que ñu ko sék ak yeen dañ dañuy sonu way duñ tass dekk bi ku ne tassaro ngir yalla li wa rasul nit yi am jamm ngeen am jamm nit yi nit yi may nit yi jamm ku ne xam fa nga jëm ñox golo xam boté joomam dekk bobu bañ a existé mu jeex don ci matière nit yi ñëw di nit ñi ñu dee si ñu ko ki ku kañ fa sul nga dem sa yoon <laughs> sa honte ça problème yu ñu am ay problème yu ñak fayda lañ am ñun quoi fichier électoral bo xamni nit mënu ci dugg ñu né duggal nañ fichier bi depuis tay suba nit mënu ci dugg suba ba légui nit mënu ci dugg ni lañ bëgg def diko def diko def kenn du ci dugg légui 6 millions d' ci fichier électoral bo xamni da ngay toog suba ba guddi mënoo ci dugg 6 millions d' ñepp ñëpp ñu ko essayé nee nañ mënuñu dugg ci biir mu né day recherche recherche bo xamni 5 heures de temps 6 heures de temps nga ngay ubbi ben fichier bo xamni 6 heures de temps la recherche moo damay xoolaat sama boobu rek xeeb sama boobu ma ne man si li may wax dëgg la nag mais Sénégal doon sénégalais nattu gënu ko rëy non nattu gënu ko rëy oh yàlla yàlla teggil nattu gi waay dee sax ko gën doon sénégalais dee sax ko gën moo ko gën a nopp noppaliku dee sax moo gën a nopp doon sénégalais dee sax moo gën a noppal nga doon sénégalais di dund ndax saa yoo dundee da nga am envie xaru ñàkk fayda laa wax ay nan lañu ñuy tege sañ administration même Sénat mënuñu defee benn fichier bu baax fichier bu baax munuñu ko nit yi mënuñu dugal seen pour vérifier ko depuis suba ba léegi depuis suba ba léegi ñëpp ñu jéem a dugg six millions d'électeurs ñii ñi yàlla may na leen de xool leen ñu ngi dox liggéey nañ ba wàcc di dox nekkuñu di live di yuuxu yàlla may na leen lépp ñu nga nii yor seeni i xolo yor seen i bis ña nga nii ndeysaan yor seen i yor ñu nga yor seen i bis di dugg di liggéey di wàcc di ñëw yor seen i bis muy taw talibaa nga rafet oto nit ya lamp yi di tàkk mais ñi ñi man xaw ma ñi nuñ ma gënee nday rek ñi ñoo ma gën nday ñii ñoom xaw ma lan lañ ma gënee nday man tawar ñu ma gën nday man ñii amuñu problème bi mu am di yuuxu nii ñoom am nañ seen fichier électoral bu nekk ci internet bi kenn dindilu leen ko ñi ak seen i kenn du leen wax dem leen jëli seen carte électeur seen biir kër yi la ko poste di indi tegal leen ko fa non mais ñun ñun ñooy doome xaram ñun ku wër doome xaram rek dugal ci suñu réew moomu kenn respecté wuñu man xawma ñi nuñ ñu gënee nday nii nii man ñi ñii daal man war nañ maa wax seen seen nday lan lañ liggéey ba gën suñu nday ñun ñun dañuy souffrir pour mën a am sax lu ñu lekk souffrir pour mun a dugg sa sañu fichier électoral souffrir sax pour mën a jot sañu fichier électoral dinañ ko yuuxu ay at balaa ñoo jot sañu fichier électoral buñ ko jotee pour ñu dugg ci dañuy yuuxu daw bay bëgg a dee pour mën ci jot yàlla ñu yàlla muusal waay ñu lii lii moom safara bu ndaw la jàpp naa ni safara ñun buñ duggee safara du metti man gëm naa ni safara bu ñu fa duggee dara duñu fa safati dara parce que dañ ko dund fii ñun dañoo dund Sénégal safara gu jaxanama goo xam ni mënatuñoo dund safara ba gis fa lañu lañ luñ dund ñun mënatul ne ñoo fii Sénégal moo gën a Sénégal la gën a tàng safara foofu jaxanama sax bu ñu fa duggee duñu yëngu dañuy taxaw di ko résister xam naa ne boobu yàlla dina ne waa nii ñii fu ñu jógee <laughs> Sénégal lañ jógee waaye mun formation Sénégal di ko am ñëw fii safara di la jaaxal c'est pas possible n'est pas possible Un fichier électoral bu jor xool leen ñii seen réew yi niñ mel xool da nga cool tranquille nekk sen jam ah xool leen problème bu ma am ñi amuñu ko de ñu ngi ñoom ñu ngi seen joie seen bonheur ah seen ndey yi liggéeyal leen ko sen baay ak seen maam yi ngi nii de ñi koo ci laaj fichier électoral même boo waree fàtte 18 ans sax dañ la koy indil sa kër na indil la lettre gouvernement bi moo lay indil lettre jox la ko gouvernement bi moo lay indil lettre jox la ko ah. vraiment. hello hello. right. where you from. Senegal. Senegal. Motherfucking country. Are, are, you, are you happy? Yeah, I'm not happy, bro. What's happened? Yeah, because they're so hard. The people live in the harrow. The people are so, not happy because the government kill people So you are in Facebook right now? Yeah, I'm in Facebook, man. You are right now? Yeah, right now I'm in the Facebook. Okay, good. You can talk, bro. Talk. Yeah, I'm talking with my people. You know In your language? Wolof. Mais tu parles français, non Je parle français, oui. Mais tu peux dire aussi à mes amis, nous, on est, on est des Togolais. Ah, vous êtes des Togolais Oui. Ah, vous souffrez, vous aussi, hein Ah, pourquoi on souffre ah, Vous souffrez du gouvernement togolais, non Non, mais le gouvernement togolais, c'est bon. Ah bon Chez nous, quand même, c'est bon que je vous. Vous, c'est qui encore Nous, c'est fort et Sozimna Nyasingbe. Ah, hein, il est bon Il est trop bon. D'accord, d'accord, d'accord. Et chez vous, c'est qui du courage. Et chez vous Nous, c'est le Marfoko Macky Sall. Pourquoi Il a fait quoi Non, <laughs> il, a, il, a, il a mis là-bas beaucoup d'immeubles, beaucoup d'étages, beaucoup de, tout, le monde vit bien là-bas. C'est vous, il travaille bien, non Ah ben, oh, un peu, un peu. Un peu, un peu. Pas de problème. Laisse-moi parler ici. Moi, je veux écouter, tu parles en français. Comme, euh, ça, va comprendre. <laughs> Vous Non, mais tu as dit que Nyassimbe travaille, non il travaille bien, non Ah, il travaille bien. <laughs> Allez, mais gérez-vous. Alors, nous, on est en train de gérer avec notre imbécile là. Comme Nyassimbe travaille bien, dis courage. <laughs> Hein Ok, Moi, je continue ici de parler avec mon, mon, de là qui dirige mon pays là. Vous êtes entre la vie et la mort, tu parles de Nyassimbe, vous, euh, Togo. l'un des pays, l'un des pays les plus pauvres au monde ak c'est xam nga ni bu ma meloon ni waa ji daw naa bu yàgg moom mi ngi fi fàttali ne leen sax lijjantiwu leen sax ña fa nekk nee leen nañ leen rey na leen ñas yi mbe rey nee na foofu lépp ñaayis <laughs> moom moo daw na ñëw fii en sécurité làqatu fii naan ñas yi mbe togo ma ngay liggéey <laughs> te ñëpp xam ni ngandam maami dictateur la mais man nag moom du ma traître comme kii on continue les gars On def je wax Macky les wa ay élection kenn du ko def ci ay caaxaan ci ay xandang fichier électoral nga ko ci internet bi jox électronique bi lien électronique bi vérifier ces données xam ban bureau de vote la ñuy cartographie bi nga ko la ngeen ñu lien depuis 8h ba léegi maa ngi ciy jéem dugg mënu ma cee dugg te adduna bi yëpp nee nañ mënuñu cee dugg respecté leen ñu un peu lillahi wa rasuli ay doomu sénégalais jàng nañ wër adduna jàng ba ne ar ñëw di développé ay site di développé ay ay euh, lu lu di di ay ay site développeur de site jël bi jox ñu lu lo xamni ñepp mën nañ ci dugg vérifier tricherie rek tricherie fen sacc ñab-ñabal taf yëngal mais way ñun dañu sonu dañ sonu sena bandi la sena Macky Sall la ay wuy ñoo fa nek ay bandi Sall ñoo fa nek ñuy liggéeyal Macky Sall ñoko tay do fu mëna dugg kenn mënu fa dugg mëno vérifier ba dugg fa

fichier électoral yi ñuy tàppe fichier électoral yi ñuy def ci ay feuilles di leen ko jox non c'est incroyable c'est incroyable ma nga nag bon euh, ñu ngi naan ma ay maire Aïssata Tall Sall day <laughs> chinois bi chinois bi boo xaw ma chinois bi xaw ma euh, nu xaw ma japonais xaw ma chinois mélangé Aïssata Tall Sall day conférence de presse suba quoi <laughs> d' accord ñu koy xaar kooku ni fen moom ko fen mais Aïssata Tall fen moom ko fen gëmut dara moo fi waxoon ay waxu transhumance ma nga woon ca biir fen rek lay def maire boobu ak a salté kooku moom moo gën salté ñëpp suba suba ngeen aras dina toj xar ñaar <laughs> kenn ci ku dàqa fen Sénégal day conférence de presse suba Antoine ñàkk jom Aïssata Tall Sall Ismaïla Madior Fall Macky Sall ak kanati genre xeet googu saa yi ñuy jàkkaarloog micro oh, oh nga xam ni malaka yàlla yi jóg <laughs> dootuñ nelaw guddi yëpp fu mu nekk nii malaaka yàlla yi taxaw nañ alerte lañ alerte maximale alerte maximale pip pip alerte maximale pip pip alerte maximale yeneen kii kii malaaka yi jóg lan la lan taxaw leen taxaw leen taxaw leen am na dulkat bu mag bu war a génn suba Sénégal na cay ñoo ñu yàlla kañ lañ ñuy may jàmm yow yàlla yooyu munoo rey ñooñu ñu am jàmm benn yoon ñu dàqa fen ñoo xam ne chaque jour aras yëngu saa yi ñu yëngoo aras yëngu di xar tël tël tël di toj te dañuy tabax defar ba sonn ngir yàlla doo leen rey ñu may am jàmm tuuti ki mel ni Aïssata Tall Sall Ismaïla Madior Fall Antoine ñàkk jom Macky Sall ñoo dàq duul Afrique sow jant ña ngay jógeti suba nag oh tey rek ma métteeti tey aras yëngu laa ilaha illallah suba ku rek la aras di toj tasar ku la dàq fen nga ne ma kii la ak ñëw mun a fen li dañoo fen ba verte dañoo fen ba xonk suba nag beneen fenkat bi dina génn suba incha allah loolu Aïssata Tall ngeen belanda rek wajal sen bop te xamni ni nattu dina leen dal suba suba dañ am ben nattu bu metti buy ñew waaw te seytaane yoni na benn soldaaram Aïssata tal sal suba dal boo leen mënee fat sen nopi fat sen nopi amna ño xam bo ñi wax da ngeen di fop sen nopi amna ño xam bu ñi wax jënd leen ben coton dem leen jëndi coton bu bari ngeen fat sen nopi fat sen bakani parce que fen yi fep lay jaar su ba dëkk bi tàkk aras di jaayu tël tël tël di toj malaaka di xëcc di kole oh, oh, oh, yërëm naa leen waay ay waay ku mun a fen ngi génn suba waay ay waay man yërëm naa malaaka waay yàlla leen yàlla dimbale te wàccel leen coono ay waay ndeysaan ma leen xalaatee rek jooy tey malaaka yi ay waay suba dinañ sonn waay <laughs> mer mun a fen ngi nar a génn suba waay cey suñu borom cooy hmm, metti na daal mais ñu ñaanal leen rek ñu xam ni dina metti ci ñoom trop suba waaw ma ngay waaj a génne nag fen rek lay def tey jii détenu politique yi ñu waroon génne génne wuñ leen cinquante détenu politique yi ñu waxoon ni tribinal bu Pikine moo doxoon listam ñu war leen génne ñu yóbbu ko tey génne wuñ leen cinq prisonniers politiques ñoo génn di leen wax ne nañu libérer les détenus politiques c'est une demande sociale libérer les détenus politiques Sénégal ñoo koy réclamer libérer nos fils libérer leen suñu frère libérer leen suñu sœur libérer leen suñu jigen libérer nos fils bu ñu amoon kuy japp yeen lañuy japp yeen yéenay terroristes yi mag yi yeen ray ko reykatu di fen kat yi te ngeen libérer nos fils libérer nos frères libérer nos sœurs libérer leen suñu jarbat ñu leen koy wax te c'est une demande sociale voilà tey la ñu waroon tey cinquante la ñu waroon libéré ak seen i fer yooyu moo nga noonu nag nekk nii ñoo wax daal naan Diomaye fay ak Sonko ci seeni wax signé nañ ba pare pour seen libération il se peut ñu libéré leen tey ci tey ci trois heures du matin lolou la dégg na fa ay rumeur yi daw fofu ci souf ci couloir yi ñu né signé nañ sen libération Ousmane Sonko ak Jomay tay ay bor 3h du matin bo defu nak dinañ genn lolou dal dégg na ko ci wé forna ko ci weewu bëy for naa ko ci weewu bëy te Ousmane Sonko tay lay genn ak Jomay à 3h du matin ñu signé nañ ko ba paré je sais pas nak forna ko dal ci weewu beuy voilà nous libérer les détenus politiques libérer nos détenus politiques libérer les détenus politiques libérer nos frères libérer nos sœurs libérer les signes Jarbat, libérer les signes papa libérer nos sœurs libérer les détenus politiques c'est une demande sociale voilà fichier électoral bu set bu lar bo ku dugg day dugg ñep dañuy dugg six millions d'électeurs ngeen génn fi fichier électoral tay pour dugg ci sax problème la kenn mënu ci dugg muy rechercher di rechercher di rechercher ba da ngay mujjee fa portable ba boo defoon naa sax da ngay sanni portable mu toj da ngay ci portable nakata de ñoom la ay xaj lañ ay bandi salté lañ di ngeen ñu jox nak suñu fichier électoral yeen di ngeen ñu jox suñu fichier électoral bu bu jaar yoon nit yi mun ci nit ci dugg di vérifier waaw développeur de web ñi ngi fi fess fi tép am xam-xam jang ba ar ñëw taxaw ngeen war ko def dafu leen ko yeen ci tia tia rek ngeen di mbuxum caay-caay fen sàcc taf yëngal ñaa njaaba njale bricolage kese ngeen di dundee autorité de merde autorité de la honte bandi salté voyou vagabond tricheur faux cul man la laa wax nañu libéré les détenus politiques te jox ñu suñu fichier électoral bu électronique voilà man xaw ma man dëkk boo xam ne vingt et unième nga ñëw fekk ab magasin boo xam ni cinquante cinq xaw ma soixante cartons yi fees dell ñu ne lii lan la ñu ay fichier électoral la ñuy xanaa nañ koy lekk ñuy bind Matam Podor Dagana Kaolack Ziguinchor <laughs> coow ma ne laay ñii ñoo tardé ñii ñii ñoo torox ñii ñoo torox ba bëgguñ ñii ñi yàlla di maye ñu ne mukk duñ jël li yàlla di maye monde bu développé bii amu leen lan li nga ne da ngeen fichier électoral la def ci ay carton fichier électoral mais ñi ñooy dooma xaram dëgg kuy wër dooma xaram jàppal ñii ñi ñoo ñi ñoo torox te nangoo toroxal seen bopp yàlla ak li mu defal doomu aadama yi nii xam-xam bi nu mu yànjee jamono ji lu monde bi monde bi vitesse à une vitesse exponentielle lañ toll Sénégal ñoom ñi ngi ci fichier électoral bu ñuy def ci ay feuilles def ko ci ay carton të të ñii kuy wër doomi xar ñi des fois dama am envie ñu seen maam quoi laa ilaaha illallaah mais ñi xamuñu ni léegi lépp ci internet bi la rendez-vous sax da ngay jël clinique boo bëggee dem sax rendez-vous da nga koy jël ci internet bi tag doo bouger clinique bi jox la date jox la kii jox la heure jox la lépp nga ñëw nga dem boo ñëwee da ngay ñëw rek fekk mu ci internet bi nga joxe sa tur rek kooku bind tarak jàkkaarloog yow ne la waaw kii docteur tel mais ñi ñooy doomi xaram ñi fi ci électoral ci ay carton lañ ko def ci ay feuille mais lan lan lañ ko nara def nak dañ ko nara a fas distribuer ay nit wala lan on j'ai pas compris li pour dañ koy yeyi wala lan xana ay xar lañ xana dañ koy xooji lem lek ci ko hein xana dañ koy yeyi da xasse ko pass avec la nouvelle technologie amul lan xana ñi feuille ay carton dañ koy xorti ji dem def def def ci ndox da xasse ko pass jox ko xari non ñi duñu nit quoi duñu sax russe duñu sax russe man depuis ban adduna la la ñu jël ay fichier électoral di ko def ci ay carton ci ci feuille non non fa dafa damay jooy sama du ma doon sénégalais nu mu ma méttee sénégalais gii ma doon nu mu ma méttee ba métti na ma ba ci kanamu yàlla métti na ma ba bu amoon plainte ma def ko ne vraiment xaw ma lan nag mënoon nañ ma def lu ne sauf ko quoi vraiment mënoon naa fee doon kaana mënoon naa doon angale mënoon daan non même mun mun naa ñuul sax mais au moins ma am ma ma nekk américain quoi nekk canadien wala nekk espagnol wala nekk nekk leneen daal vraiment parce que lii day dagg xool quoi ay dooma xaram jiite la bandi salte yi nga bokk na ci lu ma gën a metti daal bokk na ci lu ma gën a metti bu démb doon tey ma yàlla doon ñaan laaj du ma fa mus dëkk du ma fa mus a dëkk du ma leen sax xam ñak nañ fayda ñak nañ jom duñu rus amuñu gatché bu gatché don ray duñu dara duñu tous non xam nga Senegal Sénégal bare nek ben espagnol mom neexul tamit <laughs> parce que parce que sa baye ngi Sénégal sa yaay nek Sénégal say xarit nek Sénégal sa doom ndey nek Senegal, ñep nek Senegal baña nek senegal Sénégal laa la wax baña nek senegal Sénégal bañ a Sénégal laa la wax deggoluma la xana baña nek c'est-à-dire baña xam sax Sénégal mel ku juddoo France wala fenen ba xamni xam ni xaw wax dara bu senegal vacances la fam vacances xamni ko du lijjanti dara wul senegal vacances la fay dem ñu xol gaaya ki na ah, fii xal salte naa xasaw naa fii tilim naa oh, oh papa ici c'est sale y a trop de micro oh, papa mais merde ce pays de bullshit mais papa où ça mais yo mais mais regarde ici y a des moustiques là y en a plein là y a des mouches

non c'est incroyable li neexul ci xol quoi ku la gën a xaja ne ma kii la dëkk bu yées bu bona bona bon yoo xam même fichier électoral gars yi dañ koy dañ koy grève pour am ko hein? koo fu wax ne tubaab bu ma fi taxawal la ne ko ñun chez nous là pour avoir pour avoir pour pour pour avoir accès au fichier électoral il faut faire des grèves même des grèves de la faim Hein? Nos utilistes sont prêts même à tuer des gens juste parce qu'ils réclament euh, leur fichier électoral. Que, ça soit accessible. Ils ont la Je dama dama pas ak samay nawle parce que nekk ci mbedd je di wax sax di je sax samay nawle yëpp le. réclamer l'enseignement fichier électoral bu baax ñu vérifier te ngeen arrêté seen feuille yooyu seen barigo yooyu ngeen def feuille ba mu fees dal naan fichier baa ngi nii fichier électoral <laughs> waay man tey laa tit tey laa tey laa jommi tey laa jaaxle tey laa tiit tey laa jommi laa jaaxle laa tiit ba ma yeewoo gis ak carton yi ma lii carton lan la carton ñax la carton ngooñ la wala lii carton ripaas la wala rakkal lii pour lan la ñu ne ma lii mooy fichier électoral ma ne waay mbaa di fichier électoral bi livre la ay livre yu ñu génne la ban édition la lii gars yi jaajëf waay ñëpp naa jàmm jaajëf seen loof dañ yëy seen këyit yooyu

monsieur qu'est-ce qui se passe non je parle de notre fichier électoral là c'est pas accessible on arrive euh, un peuple de 18 millions de Sénégalais on n'arrive pas à avoir notre fichier électoral excusez-moi hein, monsieur euh, bon en fait je parle euh, je parle de mon pays parce que nous on n'a pas accès à notre fichier électoral sur l'internet où on, peut, on pourrait voir là-bas, avoir accès voir nos informations. tu, pourrais, voter là-bas si tu étais ici Oui, si je suis ici chez vous, il euh, n'y a pas... Tu peux voter là-bas Non, non, non, je peux voter ici, mais je n'ai pas accès au fichier. Le <laughs> gouvernement, c'est la merde. Ah mais c'est la merde, C'est la, merde. partout. Ah, c'est totalitaire sur la planète maintenant. Ouais, c'est totalitaire, mais chez nous, c'est plus haut, c'est un niveau plus haut encore. Là-bas, c'est la dictature. C'est des bandits, de vrais de voyous. Ouais, tu dis quelque chose, puis ils tirent. Ils te tirent, ils te tirent. Exactement, c'est des criminels. Nous, on a, on a des criminels. Je te meilleur. Merci beaucoup, merci. gentil. Parce que les lay xool qui kii lan moo dal voilà vraiment souhaitons le meilleur leen di souhaiter le meilleur daal yàlla leen yàlla tegal teggil tuuma bi yàlla leen yàggal yàlla teggil coono yi leen dal lii lépp toroxtànge gi xeet gi leen dal yëpp yàlla y ko le teggi ak ñi ko teg yàlla leen fa yàlla jële ci nu mu gën a gaawee ci barke Seydina naa sallallahu alayhi wasallam voilà metti na trop nag mais yàlla baax na yàlla baax na doo xam foo koy jooyee peace and love and I'm out